man la Cheikh Diop nekk ci membre fondateur euh, fondation Soxna Bally Mbacké. fondation bi li ko tax a jub mooy jàppale néew ji doole ji ndax ku ne xam na ne Sénégal li mu baaxoo bari na ay néew ji doole ñoo xamante ni bii mënaluñ seen bopp dara mais Soxna Bally moom dafa créer fondation Soxna Bally Mbacké mais pour jàppale néew ji doole ji jàppale dongoy daara yi jàppale it hôpitaux yi jàppale it malades mentaux yi parce que tey gis nañ. li nga xam ne fondation bi joxe na ko ci diir bu gàtt bi mu juddoo fondation bi mu juddoo juróom benn weer dong la toll mais ci biir juróom benn weer suñu borom baaxee na ko mu am don yu toll ne liñ ko waxee sànq boo xam ne buñ ko xaymaa nekk na enveloppe presque 62 millions ñu seetlu ko ci ay denrées fondation bi jël ko jàppale ko néew ci doole gi ñu répartir ko ni nga ko gisee noonu muy daara yi ay crèche bi Matlaboul Fawzeyni hôpitaux yi Touba ci kanam noonu la ko fondation fondation bi aussi yamul ci loolu dem na sax ba génn tubaa ndax Touba jox nañ fi 17 daara tey fondation bi dem na ba daara yi nga xam ne ñu ngi Saint-Louis dem na ba daara yi nga xam ne ñu ngi Fass Souré dem na sax ba daara bi nga xam ne mooy daara Kokki dem na sax ba Poroxaan te yamul foofu dañuy door a commencé loolu mais dafa bëgg incha allah bu ñu continuer bu ñu defaatee yeneen programme mu daj 14 régions Sénégal yëpp loolu mooy yële fondation bi nga xam ne pour jàppale askanu Sénégal yëpp. li ñu séddal tey bu ñu ko xaymaa séddal nañ tey 4000 saagu ceeb séddal nañ 900 bidons diwlin. séddale nañ 940 grosses sukkaru bekk séddale nañ 500 cartons spaghetti waaye séddale nañ 600 saago macaroni 25 kilos loolu tey fondation bi séddale ko boole yamul ci séddale na 200 cartons meew vitale loolu tey jii fondation bi waaye yamul ci loolu dafa joxe ay set yoo xam ne espèce liquide la teewee ngeen ko ñii 2 millions ñii 1 million 500 ñii 500 mille ñi ba mu nekk 7 millions 500 ci seg yi nga xam ne moom lañ joxe plus denrées yi. ñi ko jagleel comme mënagul daj ñëpp mais dañoo seet ñi nga xam ne tey ñoo ko gën a yelloo. mooy personnes yi nga xam ne tey ñoom ñoo gën a néew doole te ñu gis ne daara comme dëkk bi dëkku diine la Touba bu ñu koy wax alxuraan moo tax ñu koy wax. comme ñi taxawee alxuraan ji mooy ndongoy daara yi ak sëriñ daara yi fondation bi ne kat na njëkk ci ñooñu tey li ñu ñëwoon ci wàllu ceeb mu ne kat lii nañ ko jox daara yi moo tax ñu séddale ko daara yi nekk Touba waaye mu génn Touba dem ba ci bitti. tey boo gisee mu joxe enveloppe ci hôpitaux yi gis na ne am fa tey hôpitaux yi mënaluñ seen bopp lépp. ku ne xam na ne hôpitaux yi soxla nañ ndimbal ndax li ñu def mënaluñ seen bopp lépp moo tax fondation bi jàpp ci tey di ci woo ñëpp ñu ànd ak ñoom jàppale askanu Sénégal yëpp. fi mu jëm day door a judd ci 6 mois tey jii mi ngi yem ci Sénégal rek au niveau national waaye fi mu jëm dafa bëgg a daj àddina wangaal kap muy au niveau international ba tam wuti ay moyens pour jàppale ko néew gi doole jàppale ko Sénégal loolu moo tax a jug fondation bi lii rek ci door a judd képp mësagoo dégg fondation bu juddu matagul 6 mois ci biir dëkk bii ci Touba. ci matagul 6 mois nga distribué dons yu toll ci 60 millions amagu fi 62 millions kon loolu jàpp naa ne au niveau national Sénégal amagu fi ndax fondation yi ñu xamoon dañ doon wuti aide ci bit mais ñun demaguñ waaye ñu ngi ci tànk yi pour génn dem au niveau international wuti ay ndimbal indi ko ak képp koo xamee ne am nga say ndimbal looy joxe nga jaar jaarale ci fondation bi ñu ànd jox ko askan wi ko soxla